mooy comme ni ko champion bi raw léegi waxee Moussa Ndiaye bu Petite Côte coureurs yi manqué nañ compétition te loolu day feeñ ci boo génnee au niveau national et international boo ñoom dañuy am compétition yu doy ñun fii bu ñu organiser course bala ñoo organiser waat yàlla moo xam ñun nag Thiès Baobab Zik yàlla dafa def ay jeunes lañ yoo xam ni dañoo daje ñun ñëpp dañoo fooye velo bëgg moo ñu ci dugal yi ñuy def yëpp. suñuy moyen bopp lañ koy defee di débrouiller di cotiser di jéem a taxawal dara parce que suñu bëgg-bëgg la parce que développement cycliste moo ñu intéressé Sénégal te incha allah dinañ ci xeex jusqu'à la dernière goutte de nos sangs pour sport bi développé a quoi qu'il nous coûte baax na mais duñu bàyyi parce que sport bi moo ñu ñor lu ñu am dinañ ko ci def lu ñu xam dinañ ko ci wax pour mu développé loolu compétition yi nag manqué na te itam pour wax dëgg xam nga sport sport vélo Sénégal dañ ko négligé négligence bi mooy lan euh, mooy sport bi pour nga am sponsor jafe na sponsor yi ñu ngi buuxante ci yeneen sport yi d'accord sport yëpp sport la je suis là pour tous les sports mais itam ñu xaw a tëddee yenn saa yi njaaxaanaay ndey seex gestu itam velo bi parce que ci ci la bokk boo seetaanee jeux olympique euh, xool velo bi ni muy dawee foofu ak ni muy dawee au niveau du xam nga ni wuute na bu baax a baax a baax ñun nag ñu ngi tàllal ñëpp loxo euh, delloowuñu kenn ku ñëw baax na ñun ubbiku nañ pour ñëpp li ñu ñor mooy développement sport bi dañuy créer wër Sénégal di ko def décembre bi defe naa douze jours la ñuy def ci àll bi tous les régions du Sénégal dañu fay teew organiser fa compétition wër Sénégal ak velo ay kaye la ñuy jël di ko maye parfois ñu yóbbu ay vélo di ko may population yëpp rek pour xirtal leen ci sport bi d'accord xëy na ñun li ñuy liggéey xalaatuñu fay ku ko ci parce que coono ñu ciy daj ak ñu ciy dépensé moom mënuñoo fayeeku mais au moins génération bii ñëw ci suuf comme ñun presque centre formation lañu on peut dire dañuy former ay jeunes de 17 ans 16 ans ñooñu bu ñuy màgg dina fekk affaire bi am développement et puis li ci gën a doy mooy da ngay compétir boo yi ngeen gis ñuy daw dañuy daw ba pare mais yaar rien naa gagné kooku moom il faut que ñu wax ko amul lu ñuy gagné bëgg-bëgg rek moo leen ci bàyyi. te Sénégal adduna bi sax laay wax toll na foo xam ni itam eh, kenn defatul dara ci dara man parfois booy man mi nekk ak ñoom à la base man mi yor formation de base bi damay am kersa ndax léeg-léeg dinañ am ay besoins yoo xam ne sax leer na man dinaa leen ko mën a fajal mais parfois les moyens ne suivent pas damay mujj di naxanteeg ñoom ci ay parole ay kaddu et puis itam suñu fédération bi aussi dañ koy wax ah, dialogue bi manqué na parce que dañoo war a jigee club yi on leen demande pas de subvention et tout ça daaj ñu leen dara mais relation bi dialogue bi ñuy waxtaan ak club yi ñuy xool ni ñuy développer sport bi parce que même moyen bu amul nit ki mooy créer moyen nga jéem a créer ay moyen régler ay compétition xool nooy gagner xaalis pour investir ko ci booy yooyu yëpp waxtaan la bu waxtaan amee peut-être mooy yooyu mun na am mais fédération bi maanaam waxtaanu la club yi. pour kii bi la objectif bi. pour dundal rek comme compétition gëj naa am bañ vélo bi nelaw Thiès. parce que booy xool Thiès fi mu toll vélo bi Thiès moo ci ëpp doole parce que kuréel yi nga gis ñu daw fi yëpp ay Thiès waa lañ même waa Petite Côte ñoom Thiès lañ bokk suñu partenaire de première instance lañ donc pa bu si soxom ñi dañ koy remercier parce que mag la malgré à son âge mu ngi def lu mu mën dañ koy déranger à tout moment mais itam waxtaan communication amul au niveau de la fédération et de la ligue et des clubs ça manque parce que nag bu ñu dee waxtaan dinañ trouver solution même bu moyen amul c'est l'homme qui crée des moyens ñu xool nu ñuy créer ay moyens jéem a xool nu booy nu ñu parce que booy mënoo leen a fay parce que coono bi ñuy daj man duma ko daj ceelo parce que ñoom dañuy entraîner di ravitailler seen bopp te vélo dafa metti daf lay laaj ravitaillement su dund rek beneen affaire la pièce yi dafa cher vélo bi dafa cher équipement bi rek boo taxawee au complet da lay dikk 300000 sport noble la donc kon kenn mënut am moyens mais état bi gestuñu bien vrai que ni ministère des sports mu ngi góorgóorlu li mu man ñu ngi koy féliciter di féliciter inspecteur des sports bi mais jàppale du doy lu ñu gën a mën a jàppale daal pour mu dund parce que vélo bi Sénégal gënoon na fee jëm kanam dafa dellu ginnaaw ñun dañoo ñëw nii rek pour xambaat pour taal bi tàgg mais des na quoi loolu moom lu ñu ci mën a jàppale rek ñun bëgg na